kon yaakaar jooju ñu ngi koy ñaan daal bu mu tas mukk yàlla jàppale leen ci ca kaw hiérarchie bi ay kilifaam ba fii moo tax mu ñëwoon nag fii ci Mbàkke Kajoor ngir siyaare sa réew mi xam ne yaa fi nekkal suñu Mbàkke Kajoor te xam ne boole nga lépp di mag mu ñàkk caaxaan mag mu mës a jaar ci àdduna mag moo xamante ni sa dund gépp da nga ko jàmm yàlla te ku ma indil kaamil ma waat ne ñett ñi gën ci Touba wala juróom ñi wala fukki ñi ci nga ndax lu baax rek nga xam mosoo xam leneen say doomi bàyyi ak say ñëpp it xam nañ ne kenn gënu la kon loo ñaan yàlla dana ko def te tey ñaari casque yi nga doon te lépp nga doon taalibi sëñ Bamba kon loo ñaan moom man xam naa loolu ndax ba nga ne ma de juróom fukki at yi seetlu mu fi fu mu fi maa soo doogee koor ngatt nga waxuma laa kon farata sunna waxuma laa ngatt nga kon ci ñi gën ci nga bokk loo ñaan it yàlla dana ko def ndax yaa fi sëñ Mbàkke Kajoor di fi suñu amoon Mbàkke Gelongal di imam yi daaru minam te lépp kenn duñ fal imam ci caaxaan imam kuñ ko fal rek mooy zéro faute ci ci nit ku baax kon jërëjëf Mbacke ñu Cheikh Thioro ngi nii nag ñëw fi nag siyaare li en tant que sëb sët waaye nag ñëw fi itam kaskat boo xam ne ni dafay war a ñëw ndax mooy député bi nga xamante ni assemblée nationale moom lañu éli pour le département ñëwaat fi nag ki muy àndal di ko défendal guddi bëccëg di ñëpp am ci moom yaakaar ànd ak moom Cheikh muy Alaaji Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye mi nga xam ne moom la yàlla dimbali itam ñu jox ko réew mi xëy na niñ ko mën a waxee du loo xam ne dafa leen dañ dañ ko yónnee direct waaye nag lu ñu mën a maslaa nga xam ne lu mu def it ci lu baax dafa mel ni ñoom ñoom ñoo ko yónnee ndax dañ ko seq loolu lañ mën a waxee kon moom casquette bi mu fi ñëwee polyvalent la rek waaw su ko neexee ne dañ maa yónni bu ko neexee ne yónni ñu waaye lépp benn la ñoo xamal ne moom mooy lépp daal ñëw na fi nag tàllal loxo tàllal loxo république bi pour nga ñaan ci lépp it ak yaakaar yi suñu borom defal leen ko. comme ni ko historien yëpp waxee kon jàpp naa ne mooy ki waajuram mu jigéen soxna ab sa jaxate mooy ki njëkk a sant jaxate ki njëkk a sëy Assibirou Mbacke kon laaxa bi yaatu na lool mais daal dañ leen ñaanal ngeen yàgg fi lool te wér li ngeen am yéene liggéeyal ko seen maam yu baax yi suñu borom may leen kàttan ba ngeen yeggale ko ndax njaboot gi moom njaboot gu yàgg ci mbaax la njaboot gu yàgg ci lislaam la ndax diggante sëñ Mbacke Kajoor ak Sëriñ Tuubaa moom kenn ku ëmp coono mbir ndax loo gàtt xam-xam gàtt xam-xam mm. wala nga gàtt ñàkk sa gëstu histoire gàtt boo dégloo sëñ Thierno Jolo nga lim ci leeral dina doy sëkk di ko ñaan yàlla fa mu nekk gënal ko fi mu jóge ndax ñun ñii di ay gone di déglu ay bandam yu ci bëree bëri ñu xam ci yoonu murit moom moo ñu ko xamal kon bu ñëwee toog ci seen kanam mm. dinañ yëkkati kàddu yu mel noonu sant leen baax a baax mm. njaboot gi ànd ak ñun ci liñ doon def mm-hmm. ànd ànd ceeg ñun ci saahir ànd ceeg ñun ci baatin mm-hmm. bu dee saahir sëñ fépp fuñ mas a yëkkatee fépp fuñ mas a gestoo dinañ ko gis ci liggéey bi mhm. ma naan la depuis 2019 ba léegi mhm. sëñ Saliou mii ka Saliou ka naka noonu mhm. kon dina baax bu buñ toogee ci seen kanam ñu seereel leen loolu ne ñu jógee di di di wut li ñu wut tamit kër gi kenn mënu leen ci kon président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye fay xam nañ kër gi bu baax a baax li ñu suyee ci seen victoire te bu soobee yàlla lépp lu kër gi di yëngu bu soobee yàlla fas yéene nañ ko ànd ak yéen baax a baax a di sàkku nag ngeen ñaanal leen xam ne président Bassirou Diomaye ab jullit la mais doom la ci kër gi du taalibe ci kër gi am na yéene ci Sénégal mais am na yéene ci l'islam bi am na yéene ci yoonu Serigne Touba bi comme ni ko Serigne Cheikh waxee rek ñëpp xam nañ seen dund gépp ci l'islam ngeen ko jeexal kon boo leen ko ñaanalee yenn oyof dina oyof te sénégalais yi am nañ yaakaar ci moom yaakaar jooju it moo tax ñu jox ko falin wu rafet yu ñu fal kon dañ sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko yenn bi oyof trop trop trop ndax yaakaar ji nit ñi am ci moom rëy na rëy goo xamante ni foo ko takk weesu na ko mais gëm nañ ne boo leen ñaanalee yàlla suñu borom dina ko gàttandu ba yen bi oyof lool kon ñu ngi sàkku ngeen ñaanal ko baax baax baax ginnaaw bi ñu leen ñaanalee nag suñu borom bàyyi leen fi ngeen yàgg fi lool lool lool te wér ñoo leen fi teg kon ngeen dimbali nit ñi ci ci ci ci ci yërëm leen woyofal woyofal leen seen ndax réew mi kat metti na lool fii nii xëy na ay ay jaar yaa lay doon rek waaye nag ñoo ngi ñaan daal saa borom euh, soppi ko daal gannaaw yéen a ngi ci nag te yéen yéen a ngi ci yoonu soppi ko kon yàlla leen ci la yàlla dimbale dafa leen ci ndam saxal leen ci baax euh, euh, bi dëkk bi nag di bis bi mel ñaan la ndax Sëriñ Tuubaa bi mu bàyyi ko ci géej gi woor sànn ba wari bisu ñeenteel ba fii lay ko yendu si fekk fi koo xam ne kii waajuram la di sëñ Mbàkke Kajoor ndax moo moo moo bàyyam ñoo bokk benn bàyyi di ab ab xaritam di ab taalibeem ndax ni mu koy jur jur ak ni mu koy màngool teew la daa teew dafa xawoon jébbalu ci moom ndax keroog ba mu jógee ci jàkka ja sëñ bi muur ko ba ci néeg mu dal ndax ba sëñ Mbàkke dafee sëñ Tuubaa dafee def ñeenti néeg ba sëñ Mbàkke Kajoor jógee Mbàkke Kajoor dikk seet si dañ ko ne yegsi daf ne nañ ma génneel bagage samay bagage yóbbul ma ko ca néeg man dumbay boobee bagage yu mu mënta tàggoon yóbbu ko ci sëñ bi dikkee sëñ Maamar sa dikkee nuyoo moom mu ne ko nag néeg bii barab bi ñeenti néeg ñoo fi ne yi néeg na la fi taalibe yi ak bokk yi fekk na siyaare ñi néeg nañ la fi añu xéewal yi ñi néeg booy booy booy maa ngi dem ca daara ja su ma la soxlaa ma naa ñëw soxla si la boo ma soxlaa maa ñëw fekk si la ak sa bu ko def ba am bis sëñ bi mu ñëw Sëriñ Tuubaa nuyoo mu fay ko ñu ko xanaa bett naa leen lool de ñu ko ah, Mbàkke seen woon woon wii waxtu de ñu ko damaa dem ci yoon bi sans borom ne ma demal ci sa kilifa aada goo googee bis bis na tey sa ci moom la nekk moo lay digal mooy fer sëñ Mbàkke ne ko nga ne lan sëñ bi dellu ci mu ne ko waaw nees di wax ak yàlla ba nga wëlbati ko di di la digal ak a tere mu ko sama borom daal la wax gis ne tey daal yaa may tere bismillah waaye nag bala ngeen la jox sama ndax ku wax ak yàlla kat. waaw. xel la jëm lu jëm. ak sax. ñu wéy ba am na fi juróom-benn weer ci kër gi. dundal la ko fi naa nga ni kenn moom sa sa seen ah. koy jógee mm-hmm. na ko fekk na mel na kuy tàggoo moom dam dikkee sëñ bi boole ko maam Thierno ne ko na ngeen ko gunge ba yegg kër daal di wut gaal def ci ay yére yoo xam ne ay koy ki kat dafay tàggoo si mu ne ko day tàggoo si am sa liggéey ah ne de soxna Seyna bu moom yi waa nett na man sëñ bi ko woo ko wool Aysatu ak Mariama ak Faati Hujja ngeen dem ci diw mu natta leen fukki àndaare jàpp ak juróom ngeen defar ko dem ci diw mu defar leen ab gàtt daal ne ko xam nga lu ma jubloo ne ko ah, déelay balaa si ne ko seen bay laa si bëgg a bégal ndax bii kat damaa dem ca barab ya dar sax fekk fa ñu bare bare yoo xam ne dañoo aajoo ndimbal moom rek laa fa gis moom si sëñ Mor Diarra. si xam ne aajuwul ndimbal. ak ma laaj ko ma ne ko ko mu ne ko nag sopp gu mu ne sopp rek. <laughs> moo moo moo waral lii ak sa. waaw ba bis ba bëgg bien nag sëñ Kajoor bi.